asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah euh, yaram yi dañoo sutaate waaye euh, foog nu jóg di ju wax euh, li réew mi nekk ak fi réew mi toll dama ne mettina te dafa mel ne boroom xam-xam yi amuñ ci ay pexe dafa mel ne ndaw yi amuñ ci ay pexe dafa mel ne kilifay diine yi ay complice lañ Pape Alé Niang ku ko ñeme ne jàkk ne danga koy téye war nañ la xoolaat ndax ku war a mën a rey nit nga Pape Alé amul benn sénégalais boo xam ne danga ko tudd Pape Alé e te tegu ca goro ngi noonu te ca ku am xam-xam te tegu ca kii mooy journaliste tegu ca bu journaliste yëpp meloon ne kii kon lu mel nii bu amee eh, buñ fekkoon tëddit daanu jóg sargal ko ndokkeel ko xeexal ko taxawu ko may dellu di wax la jeunesse sénégalaise libéré libéré du tax maa kiri libéré libéré libéré déedéet dafa jot nu def ni Mali def dafa jot ñu jóg fajal ko suñu bopp ndax kat article trente cinq de la déclaration des droits de l'homme moo nu jox ndigal moo nu xelal moo nu jox dëgg xamal ne nu nguur gu mel ne nguur gu Sénégal di màbb di jaxase di sàcc di damm di duma di dóor di tëj ak di sàcc élection ak di détourner ay kees dama réew mel noonu amul kenn ku ko mën a faj ku dul peuple ba nga xam ne moom la yor kon fii Sénégal toll fii Sénégal toll du assemblée nationale kuy dindi déedéet armée bii du yàgg mukk ba mu dindi ko ndax seen loxo toujours mi ngi tooy ci biir lu toll la gendarmerie nga xam ne ñoo taxaw aar askan wi wañu ko ànd ak état di jaxase dama ne ku tiitul ku tiitul. jaaxle woo bëggoo réew mi dafa jot nag dafa jot mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam Pape Alé mii mooy mujj ces arrestations arbitraires na mujj ci Pape Alé ku xeex jëru jox rendez koo xam ne da ngaa pour xeex looy dañ ca préfet ku jóg naa da ngay xeex ana looy ñaan place boo xeexee dama ni jóg leen kan boo ko jóg Pape Alé daal bu ñu ko seetaanee suñu yaram wii iw su dama ne deret dawul suñu yaram iw la ciy daw Pape Alé ci ñu ubbi conscience si ca la bokk Pape dama ne juróomi at yii Sénégal bu ci noyyi boo gorewul boo goree dee boo goree dee doo ko nangu waaye amul Pape suba sum dul xëy ba indi chronique boo xam ne man nga caa jafan ko sa bopp ubbi may xamal bokki Pape Alé di xamal waa Sénégal les force occultes seen dëgg yëpp ak seen force léegi empoisonnement la dama les force occultes seen kàttan ak seen lépp léegi empoisonnement la entraque bi dafa bari dafa bari te réew yi am doole mën nañ ko supporter di ko xeex waaye Sénégal attanuñ ko entraque benn produit la posen la boo xam ne bu la jiitoo ca kaso ba nga nekk doo dund juróomi at bu nga ko defee ci am micro nga wax ci micro ba doo dund juróomi at ñu def ko ci mbubb taxaw ko sa mbubb wala sa ngeenaay wala dagg am napkin def ko ca nga bomb ko sa karam saw làmmiñ day damm gis ngeen siiseeloo te du moom dong de Yaaser Arafat anamu antraak moo ko rey ah dama ne Cheikh Anta Diop bu ñu ko fàtte université la taxaw di wax ci micro yaa ngi mu daanu ci suuf ndeysaan ah dama ne kan bu ko te xam ne bu ñu jógul daanu torox le président Maître Sékou Touré ah mu Maroc la nekk micro ba mu doon wax ah naka mu noppi dafa daanu ci suuf ñu force ko indi ko Guinée mu nar a dee ñu rawalee ko Amérique criminel la faatoo drogue bi bari na maanaam empoisonnement yi bari na te force occulte léegi ci loolu ci lay jóg. ay arme ak i paaka ak i jaasi xeexatul kasu ba ñu pa ale manan faa def lan boo faraanee du dund juróomi at du ko dund mukk du ko dund mukk te ak ay bëtam day wàññiku ak déggam di wàññiku guum appétit di wàññiku day dema dem bokk si te kii dafa dorogu addunaam bépp kan boo ko jóg xam ne defar moon war kilifa di nii nag dañoo daw seen responsabilité parce que ci mafia bi lañ bokk ci la ñuy añ ci la ñuy reer ci lu ñuy ndékki alal ji nga xam ne askan wee ko moom moom lañ sàcc di leen ko jox ñu di ko màggal ak gàmmoo ko tegee sabar yéen xale yi bu ngeen jógul lijjanti seen bopp torong ngeen histoire du Sénégal dañ ko yàq les vrais héros du Sénégal soo inconnus par nos enfants ñii ñu teg ci seen i kan duñ dara ay complice la ñoo tubaab bi mooy leen tàllal loxo ñu ànd moom ci guerre mondiale bi jox ko ay soldats àndandoog moom ci lépp bu ngeen yaakaaree torox ngeen kan bokk jog taxaw pas ale ña doon un peuple sukkandiku ci article trente cinq de la déclaration des droits de l'homme war a jóg nag laaj suñ souveraineté ak suñ indépendance comme noonu ko Ousmane sonk expliqué solution explique ko dans tous ses discours su fekkee dañoo bëgg a doon ay jaam continuer doon i jaam ah mbir maa ngi noonu te yàgg na de yàgg na lu ëpp six siècles la ngi nii yéen waa Sénégal nooyuwu leen France war ci seen biir toog ci seen kaw ba ci din jabaroo din jabaroo te mun waxante dëgg bi tubaab bi nekkee ndar dana jàpp suñ doomi Sénégal din jabaroo loolu lu am la kilifa yi fi nekkoon doon ay kilifa yi diin ku ci ñeme tubaab bi musuma koo gis musuma gi jël aw daal sànni ko tubaab bi te 1914 ku ci bind lu lettre ñaan njekk tubaab bi ah gisuma ko man de bindub lettre ñaan njëkk tubaab bi tey ñooñu bu fi toogee ak seeni sët am seen balaa xal madda di dund ci kaw lislaam di dund ci kaw nit ñi ñu taxaw dellu yaakaar din ci ay duma te mosuñu noo fajali duma dama ni jóg jot na jóg leen ngir sukkandiku ci article 35 moom seen bopp Pape Alé Niang mii nu bokk ko ñaar yàlla ko yàlla taxaw dénk nañ ko son borom dénk nañ ko kursiw dénk nañ ko lépp loo xam ne si mu ngi alxuraan tey làq fu yàq yàggul kon asalaamaaleykum wa rahmatullah man da Seydina Ousmane Dramé bu la réveiller conscience peace and love peace and love jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf